ngay wéyal tukki nemmeeku yi muy amal démb dem na ci njabootuk Omar yéen jóge fa dem ci jàngu bi laas yëglekaay ne jomaay fay nag demoon na seeti ji monseigneur Benjamin Ndiaye ak Thierno Madani yéenekaay bi di peko opération de charme chez les religieux l'info yëglekaay ne lu jëm ci wàllu jàmm ak dal ci réew Sénégal moom président Bassirou Diomaye Faye nag ma ngay xamle ci biir yëglekaay bi ne taxawaayu këru diine yi nag mënu see ñàkk ginnaaw Touba ak Tiwaawoon nag moom njiitu réew mi nag dem na démb ca mosquée omarienne foofee nga xam ne rek fa la amalee jullik aljuma ji moom njiitu réew mi ngay bu baax a baax taxawaay bi nga xam ne rek kilifa diine yi am nañ ko ci dal gi nga xam ne rek am na ci réew Sénégal Thierno Madani Tall nag rafetlu bu baax a baax nemmeeku boobee nga xam ne rek moom njiitu réew mi amal na ko ci njabootuk Cheikh Omar Foutiyou Tall président de la République nag ma ngay dellu siwaat ci engagement bi nga xam ne rek état bu Sénégal war na koo jël ngir yeggali nag lépp loo xam ne rek liggéey la bu ñu tàmbali ci jumaa jooje waaye nag dina lëkkaloo itam ak kilifa diine yépp ci liggéeyam visite boobee nga xam ne rek amal na ko ci këru diine yi nag moom jomaay ma ngay dalal xelu Thierno Madani daani taal ak monseigneur Benjamin Ndiaye ma ngay xamal ci biir yëglekaay bi monseigneur Benjamin Ndiaye ne ko say jaar-jaar moo ñu won doole ji ak capacité bi nga xam ne rek moo ñu indi fii ñu toll tey libération xëy tey ji àddu jëmale ci tukki ne meeku boobee nga xam ne rek jomaay mu ngi koy amal ci këru diine yi nag mu ne lu jëm ci yeggali mosquée omarienne bi nag ak sanctuaire marial bu Popenguine nag moom président jomaay ma ngay joxe ay engagement am les éco yëglekaay dellu siwaat ci këru diine yi nga xam ne rek président jomaay ma ngay rafetlu nag liggéey bi nga xam ne rek moom la fa Macky Sall naa def lu raw li nga xam ne rek ki ko fi jiitu woon def na ko ca mosquée omarienne nag ma ngay diggée ne dina tàmbaliwaat liggéey bi su ko defee nag ñu mën koo jeexal Le Quotidien ne rek bi ne ma ngay soppi aw doxalin moom moomee fi nekkoon procureur de république bu Sénégal doon jamono ji nag njiital OFNAC jébbal na juróom-ñeenti rapport ca parquet bu Ndakaaru yéenekaay bi samp laaj ne Serigne Bassirou ndax dafa bëgg def nag lu raw li xam ne rek kii di sëñ bi Guèye mi fi toogoon nag def na ko lu mu ci mënti doon yër leen boobee yëglekaay Sud Quotidien faylu ko ne lu jëm ci traitement rapport yi nga xam ne rek moo tukkee ci Cour des comptes ñeel Covid 19 bi ak rapportu 2022 bu OFNAC Jomaay Faye fas yéene na caa taxaw jàkkaarloo responsabilité ma ginnaaw bi nga xam ne rek moom jiitu réew mi sàkk woon na ca conseil des ministres bi ñu amalee fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril ñu daal di génnee rapport yi nga xam ne rek moo tukkee ca Cour des comptes ca IGE ca ñeel activités yi nga xam ne rek amal nañ ko ci atum 2022 yéenekaay bi nag ne jamono ji moom njiitu réew mi nag la askan wi yëpp di may nopp ngir xam lan mooy tukkee nag ci fukki rapport ak ñett yi nga xam ne rek enquête kat yi jébbal nañ ko ko nag ngir ñu daal di leeral koppar yi nga xam ne rek moom la ñu daal di caxat-caxatee ñeel moomeelu askan wi rawatina la ñu dugaloon ca covid 19 bi lu jëm ci wàllu rapport OFNAC boobee nag réew mi quotidien mag ñuy xamal na kii di Mansour Faye moom nee na noppi na ngir daal di wuy ji yoon ñu àddu jëmaleeg Vox Populi mi nga xam ne rek xëyee na tey ji ak accident bi nga xam ne rek amoon na foofee ca yamoon ca mbajaa neen ba fukki nit ak ñeent ñaa ñàkk ci seen bakkan yéenekaay bi di ñu xamal ne juróom bu doy waar bi nga xam ne rek amoon na foofee ca Koungheul ci biir yëglekaay bi nag moom jëwriñ ji di El Malick ma ngay xam ne ni nag yile accident ànd ak bakkan yuy faatu dafa war a jeex ci réew Sénégal te daañu ci jël suñuy matukaay bu baax a baax boobee ca la ñuy desandi ak témoignage yu doy waar yi nga xam ne rek tukkee na ci Alpha ma ngay dellu siwaat ci accident boobeeg ni mu demee yër leen boobee yëglekaay kii moom ab père de famille ma ngay xam ne ne daf caa ñàkk doomam bu jigéen ak soxnaam accident boobeeg na mu mettee dem na sax ba ngir xàmmee koor yi nag doonoon na lu jafe alimata ba ne man sama papa sama tante ak sama benn rakk bu góor bu am juróom-ñaari at ñoom ñëpp dañoo des ci accident bi libération dellu si tey jii ci banditisme bi nga xam ne rek nemmeeku nañ ko ci ni ñuy taxawoo ñi nga xam ne rek ñoom ñoo am jalis mbir mi nag jamono ji ma ngay tàmbalee am ay guerre ak i mbuxum yoo xam ne rek ñu ngi ko ciy tàmbalee nemmeeku fi mu toll ni nag parquet bi la ñu daal di saisir le soleil yëglekaay la ñu koy jeexalee moom dellu si na tey ji nag taxaw seetlu ci liggéey bi nga xam ne rek taskatu xibaar yi ñu ngi koy amal jamono ji jafe-jafe yi nga xam ne rek ñu ngi koy dundee ci wàllu koom retard yi nga xam ne rek moo jëm ci wàllu salaire grève bi nga xam ne rek moom la personnel bi dëkkee yéenekaay bi ne presse bu Sénégal jamono ji dafa tàbbi ci guuta Mamadou Ndiaye di directeur bu ti ne dañoo war a comporté wu ne ay entreprise wala ñu jóge fii Mamadou Ibra Kane di njiital CDEPS ne diirub juróomi at mi ngi nii nag presse bu Sénégal nekk ci ay jafe-jafe